ñaari soxla amuñu ñett soxla benn soxla lañu am daara ji dox daara ji dox mooy sun soxla amul benn soxla sunu lépp nag ma ngi ayu ci daara ji dox nun ak yéen ak sunu mbir mépp mépp mépp daal ma ngi ayu ci daara ji dox bu daara ji doxee daal lépp dox jàpp ci daara yi nañ jàpp ci daara yi nag doomi daara yi jaar ci daara yi doomi daara yi teraangi leen yàlla jox xëjul ci daara yi ndaw ñi daal ci loolu laa leen di woo sama moroom yi ñi nga xamante ni maa ngi ñoom ñoo maase jamono liggéey bi dafa laaj ay loxo liggéey bi dafa laaj taxawaay liggéey bi dafa laaj yitte liggéey bi dafa laaj ak cawarte te loolu ci ndaw la nekk. Daarakoki TV la chaîne au service du Saint Coran télé bi liggéeyal al Quran al Karim. xay xayloo sunna la danaan demal ne ko neel ko ko na na na na bàyyi ñëpp bàyyi. kuy tëdd dem tëdd kuy wuti loo mus dem wuti ko ndax bu trois heures dañuy tàmbaliwaat bu ñu tàmbalee ba tàkkusaan ñu julli continué waat ba timis si bëgg a jot foofu daan wax nañ taxaw xale bi mën a amaat tuuti faraax bu amee lu muy mus mën a taxawat mën a dox talal ay tànkam ñu jël timis ñu ñëw jàng julli gee danañ jàngaat waaye bu lu jege ci dix heures vingt deux heures kum dëggati ngay jàng bu dee ca fu mu mën a doon dana demal demal ne kooku na wàcc maanaam ay méthodes yu mu daan def ak it euh, lii nga xam ne docteur junj na ko tasmia jamaa yi daana am lu ñu tuddee taxaw tari nga xam ne lu mat ñaar fukki nit fukk juróom ñooy taxaw am ku ku ku dugg di wax ñuy wax bu demee ba fi mu yem jeex mu génn ka topp ka ci topp ci moom dugg nga xam ne bala nga xale bi balaa agsi ci dara du nekk lu bees ci moom waaw dara du nekk lu bees ci moom loolu méthode karat lañ koy tuddee boo xam ne bii al waqf suñ waaw daa daa nga dem ba mokkal yaasin ak suuf sax te jàngoo ko loolu tamit euh, bii aada koy créer ñaareel ba daanañ tari bind ba noppi tari bind timis tari bindu jël maanaam bind ba nga jëloon ci bëccëg bu timisee boobu sëñ Maxtaar gën naa sawar nga xam ne day taxaw ci ci ab point ci biir daara ci ku ko romb mu ne la kaay nga ñëw mooy la tariwaat sa bind ba bind ba nga tari woon ci bëccëg nga tariwaat ko wala fajar gi nga tariwaat ko loolu dafay dimbale aussi ndax nii docteur junje bari waa na loo jéem a mokkal ci bëccëg gi mu tëla ticc nga yeewu rek mel na dañ la koo sol waaw jazaawlaahu xeyran euh, saxaabatu kiram ridwanullahi alayhim amoon nañu ay yoon di séddale alquran juróom benni xaaj ak di séddale alquran juróom-ñaari xaaj am na xadis buy wax boo xam ne xaw naa gudd waaye ni muy ni mu taqsime quran ni mu ko séddalee pour kuy mu muraja euh, da ko def lu ñuy wax atiwaalu saba nga xam ne mi ngi tàmbalee baqara ba tawba su ëllëgee lu ñu tudd almiun mooy li ko tàmbalee taw ba ba mujjug fat am nañu tuddee al tiwaal al mufassal tàmbale xujuraat ba amma ak lu ñu tuddee awsaatul mufassal ko tàmbalee amma ba ci wa duha ak lu ñu tuddee xisaarul mufassal lu ko tàmbalee duha ba naasi waaye taqsimaati quraan yi maanaam ni koy séddalee ba ki ko bëgg a mokkal man cee am programme bu mu sukkandiku ngir mokkal ki ko mokkal ba noppi man ci am programme boo xam ne mooy tax mu rajaa ba dutu fàtte dafa bari may wax ne quran def naa ko ci muqaddam bi kullu turuq tu addi ila roma araba wax ci seen lépp kullu turuqi tu addi ila roma mooy yoon yëpp Rome la jëm booba Rome day capitale civilisation lu waay di wut fa la koy wuti ci moo tax arab lépp ni kullu turuq tu ila roma damay wax ne fii ba tey kullu turuq tuaddi ila xifz alquran dal na quran kullu turuqi tuaddi ila xifz alquran soo demoon ci internet nga cliqué turuq taxfiz quran karim da nga yéemu ci yàlla wala baraam yi taxfiz quran karim da nga yéemu ci yàlla façon baraam it bu ne da nga ko gis bu ne da ko gis application bu ne da nga ko gis nga xam ni suñ borom li mu wax wala qad yassarnaahu li awee ma dimbale ko ci kon alxuraan ba ko suñ borom defee ba ba mu dogalee ñu def ko xam nga ma mënoon na ko def benn saar bu jóge ci ko wàcc ndax na balaa ngaa agsi da nga yokk waaye déedéet mu def ko téeméeri saar ak ak ak ak fukk ñeent noonu nga xam ne boo ne woon man programme par saar laa man déjà am nga programme mu rajo ko mu ñu def ko taqsimaat ahzab juróom benn fukki xisib ku ne woon nan programme xisib la man bis bu ne benn baax na nga ne bis bu ne ñaari xisib lay jël baax na su bu ne bis bu ne ñetti xisib lay jël baax na waaye séddale gu ngi séddale xisib ba tey xeetu yombal gi la ba ñu waat ko defaat ko xaajub kaw ak xaajub suuf da lay waat ci noo koy muraajaa wañu ko waat kat xaaj bu ne ma defaat ko ñaari xaaj la baqara la araf la araf mariam mariam yaasin yaasin naasi nga ne man bis bu nekk benn kaar la jël ba noonu kon bi ma ne alxuraan moom foo xët foo teg sa loxo yoon la wax xam dalay yombalal programme jàng ak programme rajo ñeneen dañ naan runge gi kat moom daa waneeg mokkal am ñu ni déedéet runge moom mënta bokk ci mokkal runge bu fekkee ne bu rungee doo ca génn fii gàggantiwuñ la kooku gàgg la tudd runge li ëpp ci runge da nga am da ci mën a génne sa bopp ëpp ci runge su fekkee ne boo boo demee dikk dem dikk man ci génne sa bopp ay saa foo xam fooru ne dañ dafay jële kooku ñàkk mokk la tudd daan nañu wax ne runge moom yàqutug mokkal ndax runge ci la bokk suñu bopp kitaaban mutashabihan kitaaban mutashabihan suñu borom moo wax ne téere bu niroo la ah suñu borom nag lu mu wax ne daa niroo nit mën na caa gërëm gëlëm dinaa ko firi ñaari firi nag te mooy noonu ak safaan bi kitaaban mutashabihan téere bu bu naqaree maîtriser la parce que dafa niroo telu lu nuroo mën a jaxasoo waaye ba tey kitaabat mutashaabihan téere la boo xam ne loo ca man lu ne mu yombalal la ca des ndax daa niroo fii ne ki si fanabasnaahu banaasi lu bari ci lii di kat da ko ndax ay baat yu bokk ay yu niroog baat yu niroog alimun hakimun samiun alim basirun illallah xafurun yooyu day ñëw soo mokkalee Mariam boole ci xaajub suuf da gën a yombalal xaajub kaw niroo gi tax na loo que même baat yi moo amul ñaari soxla amul ñett soxla benn soxla lañu am daara ji dox daara ji dox mooy suñ soxla amul benn soxla suñu lépp nag ma ngi ayu ci daara ji dox nun ak yéen ak sunu mbir mépp mépp mépp daal ci daara ji dox bu daara ji joxe daal lépp dox nañ jàpp ci daara nañ jàpp ci daara yi rawaat nag doomi daara yi jaar ci daara yi doomi daara yi teraang yi leen yàlla jox xëjul ci daara yi ndaw ñi daal ci loolu laa leen di woo sama moroom yi ñi nga xamante ni maa ñoom ñoo maase jamono liggéey bi dafa laaj ay loxo liggéey bi dafa laaj taxawaay liggéey bi dafa laaj yitte liggéey bi dafa laaj ak cawarte te loolu ci ndaw la nekk. Daara Koki TV la chaîne au service di Saint Coran télé bi liggéeyal al Qur'an al Karim